asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu référence TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte di am li nga xam ne mooy contentement ci yéen euh, fépp fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo di la nuyu ci gën di nuyu tey ñu ngi fii ci diwaan nekk géejawaay wala sax ñu ne golf fekk fi benn ndaanaan boo xamante ne kenn dootu leen ko présenté waaye nag euh, nettali ci làmmiñu borom na daxee dañ koy nuyu mu toog toogaayu ndaanaan papa ngi lay nuyu di la ah doom maa ngi delloo nuyoo di delloo ziar. macha allah. ñu fekk la fii tey ci diwaanu golf mhm. wala ñu ne géejuwaay mhm. euh, fekk la sa kër macha allah nga dalal ñu sa sama bu yànj bi ñu fas yéene woon ñëw pour waxtaan si ak yow ci li nga xam ne mooy showbiz mooy art mooy lépp loo xam ne jamono ji mu ngi xew xew-xew yëngu yëngu yëngu-yëngu yi daal bàyyi laa taal ñu bàyyi la nga gën a présenté wu pour ñi xam te ne xamuñu la ñu mun la kii daal. Euh. naa Sénégal ñëpp xam nañ la sax waaye. Hmm? nouvelle génération bi peut-être mooy loolu. waaw xanaa ñu sant yàlla d'abord. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa gërëm suñu wéjjiri te di leen ñaanal nag. fa ñu tëdd. mu dàqal leen foofu fii nu bàyyi ko. di santaat Serigne Touba bu baax. incha allah di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke. mu yàgg fi lool te wér waaye dama koy jaar nag sama bunt nga xam ne mooy sama wasila waaw mu Cheikh Bass Abdou Khader Mbacke macha ah, di ko ñaanal moom it hmm, ngir yan bi nga xam ni diis na lool hmm. te mundu ko yanul maamam xam naa ne lu woyof lay doon ci moom macha waaye macha allah ñu ñaanal ko rek hmm. mu gën a oyof amiin ndax liggéeyal sa maam liggéeyal sa bopp la macha allah eh, di ñaanal nag kilifa diine yëpp nag ci réew mi. ak kilifa aada yëpp. Mm-hmm. di ñaan senegal am jàmm. Mm-hmm. ndax jàmm nag ci la lépp nekk. Mm-hmm. di ñaanal internetu référence TV. Eh, di ko jaar tamit ci seen jataay bi ngeen def ñëw. Euh, embouteillage bi ci dëkk bi xat-xat yi xam nga ngeen def loolu lépp ba ñëw mhm. waaye nag sama sama sama la ndax ki ko moom uh-huh. euh, ma di ko nuyu au passage sama copain la <laughs> imaam <laughs> <laughs> nit la mhm. sama xarit la ma mhm. fit laa ko yooye ma fit ma di ko nuyu uh-huh. bu baax uh-huh. sama xarit la eh, nit la koo xam ni dëggoom man daf maa xaw a dépassé maa ko ma fit ma fit ah góor ji sàkk bàyyi faal bi waxati nga gaafee li <laughs> ah. dañuy jaare daal di dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi li nga xam te tey moo ñu tax a jóg mhm. ah, ngay faramaareen mhm. ah, nekk koo xamante ni ku ñu respecté nga macha allah ci Sénégal ak li ko wër mhm. nga nekk euh, noobul nekk ku dal macha allah. Mm. ngay référence aussi moo tax tey référence tax ñëw def déplacement. pour def une première tey mooy sama première émission fii. ah bon site bi macha allah waaw. Ah, alhamdulilah moo tax ma ne référence. Ah. si yow lañ ko mën a jëlee tey ji nga nekk ci famille aussi nekk ci référence. Mm. am ci sa doom. am ci say say doom. sa mag nekkoon ci macha allah suñ papa Thion bi nga xam ne dañ koy jooy boobu léegi noppee noppeeguñu. Mm-hmm. famille bi jamono ji tamit yëngu-yëngu yi nga ne am na ci. Euh, le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck mu tamit génnee loo xam te lu bees daal xam naa si la lañuy la dugg see si li nga xam ne mooy waxtaan bi muy Wally Ballago Seck album bu bees bi nga génne na ko mhm. nan nga gisee album bi xam te ne moom mooy def buzz jamono ji waaw album bi day dëgg yàlla man Adamo moom ma sax yónnee <laughs> Adamo uh-huh. le boss des négri waay waay waay moo ma ko yónnee ni ma waaw ni ma loo xam ci CD Wally bu bees bi li mhm. ma ko dégloo mhm. ñaanal naa ko mhm. pour sax mu war ci mën a am nag disque d'or parce que je pense qu'il est temps parce que boobu ba léegi mi ngi mi ngi bay waaram te vraiment mi ngi ciy def ay pas yu am solo donc li am solo ba am solo mooy ñaanal ko ñaanal ay rakkam yépp nag parce que déglu naa album bi mm-hmm. gis naa ni macha allah c'est très bien fait ok ci ci album bi la ñuy desandi ba léegi ndaxte mm-hmm. nee nga Adamo moo la ko yónnee mm-hmm. mais laata Adamo la ko yónnee ba Wally Seck sa doom la balaa Adamo di la ko génnee pourquoi pas yow Wally ci boppam wala ñi gën a jege Wally Seck joxuñu la nga déglu album bi wala nay dem nga laaj ko Wally Seck non bëgg nañ xam parce que yow papaam nga mu ñëwee. Ah, ah, naa laa bañ wax mënoon naa laa bañ a laa ko déggee. waaye du ma fen dama lay wax li am. li am rek laay wax lu ma la wax boo ko vérifié rek. ci kàttanu yàlla ginnaaw Thione Seck. dañ naan ma penn Seck. indi indi la yow macha allah balaa ñëw indi ñoom Kéba ak ñi nga xam te ñoom ci kii bi mu ne mais yow papay balaa keneen nga xamante ne da siy jot dama yaakaar ne yow yaa si waroon njëkk jot donc diggante bi dafa am lu ci xaw a lu ci ñuul moo tax tey référence ñëw seet si la. non non non leeral wala déet. mais boo amul lu ci ñuul sax duma ko wax ci référence fii parce que le linge sale se lave en famille. Mm-hmm. te il y a rien de mal. yow benn interview déggu nañ la nga ne euh, siiw du jaami borom. waaw ah, loolu coono man mii tey kenn du ma ñëw di ma laaj si si sa son. te yaa ma problème fan foofu. <laughs> moo tax ñu. ñu bëggoon leer leer leerlu si rek. waaw ah, nga wax ñu si li nga xam te ne mooy relation ak Wally Ballago Seck. xanaa mu nekk sama doom. nekk sa doom. waaw xam nga yéen yéen a koy. gis ngeen gëj a déggante. Euh, moom moo fi ñëwoon. y' a pas longtemps. moom moo fi ñëw. ba léegi album bi lu mu ci wax si est-ce jox na la ko yow moom en personne. non xam nga man man mën naa ko comprendre. yaa léegi la golden boy de la musique sénégalaise. Mhm. golden boy nag boo xasee ba dégg. gars ñu ko tuddee. waaw mais c'est parce que il est le golden. Mhm. boo nekkee golden nag. Mhm. ñi la entouré ñoo lay comprendre. parce que tu as peu de temps. sa temps du bari. te wax dëgg yàlla. tolluwaay bi mu toll su compréhension amul rek réeroo day am parce que man mii jaar naa ci xam naa bu baax te ba ma ci toll bëggoon naa lool ku ma comprendre donc on comprend mais papa dafa foor ah parce que gannaaw papa Thione bi ah. nga xam ne moom na ñuy jooy te ah. noppeeguñu boobu léegi tey jii yaa fi nekk comme kilifa ak ki nga xam ne ah, am naa ay mag waaw am nga ay mag mm. mais macha allah mm. euh, mag nga waaye mag nga ci biir mag ñi macha allah ngay kilifa moo tax tey jii ñu bëggoon xam sa taxawaay ci li nga xam mooy famille Faramareen. sama taxawaay de moom xanaa mooy rek ñi ma mag. ma jox leen cër bi. ñi nga xam ñoom ñoo ma mag. ma jox leen li ñu moom. xale yi li ñuy dundee si biir famille Faramareen. xanaa ah da bëgg ñu enchaîner question yi. wala famille famille bi nga bëgg ñu wax ci wala ci carrière bi lan nga. waaw waaw waaw ok sama taxawaay daal mooy ci laa bokk rek bi ci bokkee tamit dafa am lu ma ci bokkee dama may kilifa ñoo xam ne ñu ngi ci famille bi ak ñoo xam ne damaa bokk ci ñi leen yilif mi ñi nga xam ne ñoo ma féete ndax mag yërëm rek ndax nit ku nekk li nga ko magee loolu nga koy tane rakk aussi respecté mag mhm. parce que mën ngaa mag ku ne waaye sa mag moom mënoo koo mag du dëgg taxawaay bi nag mooy comme position bi ma ci am mooy bi ci ñëpp am rek li ma war moo war ñëpp donc on est en famille bon famille nag moom buñ ko waxee famille plus la parce que dañ ñoo xam xam ngir ñu xam moo tax pour nga am vie mm-hmm. privée sax day jafe donc taxawaay bi rek mooy bëgg sama famille nag mm-hmm. est-ce que est que Wally Seck cër bi nga xam te ne am nga ko ci famille bi yow yëg nga ne moom jox na la ko sentir nga bu baax a baax. xam nga yow ba léegi xam nga yow ba léegi. Hmm. yaa ngi wax ci cadre boo xam ne. sa diggante ak Wally Seck. non bu pourquoi nga choisir sa diggante mais sama diggante ak. Wally man man man xaaral rek xaaral rek nga ne Adama moo ci moo la ko mais dëgg laa la wax bu defee dara ba pare yow mi nga xam ne yaay papaam yaa fi njëkk yaa moo ma ko yónnee. Hmm. parce que daf ma njëkk a yónnee message ne ma. est-ce que déglu nga CD Wally bi ma ne ko non dégguma ko sur le champ mu yónnee ma ay audio démb laa toog fii génne offeur bi déglu ko bi ma ko dégloo pare ma ñaanal ko ah, Adamo mi ngi bind Adamo bu Wally xam nga Wally ne peut tout faire <laughs> même xaru tabaski yi may yónnee nii sax dafa am ñu koy indi di yóbbul Mapenda di yóbbul Assane di yóbbul Keba donc xam nga waale mënul fu ne mu dem fa wax dëgg yàlla nag lu la nga def ko mbaa lu na nga kii ko yàlla rek ko mën mm-hmm. te defu ko yàlla sax dafa am ñu tàbb xam nga li mu li mu digg dafa yónni ay yonent ci nit ñëpp mm-hmm. lu dëgg pour ñu tëj waxtaan bi Wally Seck wàccoo na ak yow ah doom moom du mësa wàccoo ak waajuram mm. mais kontaan nga ci moom daal ci li nga xam ne alhamdulilah alhamdulilah mais pourquoi toujours Wally non damay ñëw damay ñëw parce que li nga ma wax si aadamu loolu tax ma ma ma desandi li am laa la wax jeex na euh, ok léegi dañuy dugg ci li nga xam te ne mooy ba tey album bi euh, ki nga xam te ne mooy yaayam génnee un jëndee ko li nga xamante ni mooy album bi yow sa euh, yaay Wally Seck kan jaala waaw waaw ah, daf koy soqi waaw soqi ah, ah. nan nga gisee loolu soqi kon da koy soqi <laughs> da koy yow si nga eh? xamante ne mooy sa doom bi nga xamante ne eh, jamono jee si ginnaaw génn na def benn sorti oh. eh, bi nga déggee loolu. Oh. bi nga déggee sorti mu def ko fi nga toog lan nga yëg. ah yëg xale la nag. yëg ne xale la xale day day day day day day def erreur. ah xale ma saga mag ñay def erreur sax est xale. Mhm. tolluwaay la ñun ñëpp jaar nañ ci. Mhm. fukk de jeunesse la rek. est-ce que li mu wax noonu réellement am na. li wax lan la wax. xale bi li mu wax. man xaw ma lu ma euh, leen. kan. Wally Seck jàppale wu jàppale wu leen. loolu moom da ngay dem nga laaj ko ma ah, parce que dafa question yu moom moom man. Mhm. ak yoo xam ne ma Ndiaye ko moom. Mhm. yi Keba ko moom yi Bombali. Mhm. kenn maanaam boo bëggee lim daal. question wu jàmbur moom mënu ma cee tontu. et puis sax pourquoi ñuy xaar pour Wally jàppale la. nit ki nag war ngaa xam ni li ngay li lay jariñaa koy liggéey sa bopp mm-hmm. sa papa sax mm-hmm. dafa am loo xam ne moom la la mënal ak sa yaay mm-hmm. waaye dafa am loo xam ne nag garab gi moom yaa koy gësam nag yaa koy gësam waaw mm. boo amoon conseil boo xam ne dañ koy jox uh, ki xam ne mooy sa doom ñoom ñëpp généraliser loo koy wax mooy ñu góorgóorlu te xam ni dañu foogoon ni day yomb mais du yomb yomb de parce que dina am ñoo xam dinañ la wër ñoo xam ne bokkuñu sax ci famille am na ci boroom xalaat yu rafet yoo xam ne luñ la wax rek mooy jàppool ak say mbokk ndax ku wàcc sa ànd ànd boo yëg mu toj am na nag ñoo xam ni yéen arrangé mooy mhm. ñu diviser comme ça ñu mën a wéet ak yow yooyu yëpp avec le temps ñoom ils vont comprendre parce que ñu ñëpp jaar nañ ci man def nañ lu ne pour génne ma ci coon pour ma dem def nañ ko sama diggante ak ma penda ñaan def loolu entourage toujours ñi lay wër am na ñoo xam de ci biir wax nee am na borom xel yu rafet yoo xam ni ñoom bul ñëwee duñ la teqaleeg say mbokk duñ la jaxaseeg say mbokk mais am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci bon bi problème yooyu amee est-ce que famille bi toog nañ comme yéen mag ñi est-ce que toog ngeen ngeen wootante seen biir parce que yéen récemment dégg nañ ki nga xam te ne mooy Mapenda Seck mu ne loolu su ñun la ko toog nañ ko toog waxtaan nañ ko waxtaanee. kon kay question bi. est-ce que waxtaan est-ce que waxtaanee ngeen ko. waxtaanaguñu. loolu di xaar ak kan moo war a woote. mais xëy na dajaloo moo amul. Mhm. dajo bi. Mhm. parce que bu kii xëy na léeg-léeg kii nekk ci tukki. Mhm. kii nekk ci tournée. kii nekk pour temps moom pour ñëpp amandoo ko. loolu moom mënta nekk. mais bu ñu gisee gisewun tamit ñu ngi waxante téléphone. est-ce que xalaat nga ne bés dina ñëw euh, famille bi ñëpp mag yeeg rek yëpp booloo doon benn doonaat benn comme. Euh, doonuñu ñaar de. <laughs> non comme. benn benn benn label boo xamante ne comme Wally Seck ubbi na ko temps yi est-ce que xalaat nga ne xale yi dinañ ñëw fekk si ko. Faramaren la wax. Faramaren Faramaren c'est toute la famille. Mm-hmm. xalaat nga ne booy dinañ ñëw. mais booy sax ñoom dañuy ñaan yàlla ñoom it ubbi ay label daf ko Faramaren. Mm-hmm. parce que ñoom tam ay Faramaren lañ mm-hmm. ah. macha allah ñoom ni ñu coon meloon si ñun. Mhm. noonu la Wally mel si ñoom. macha allah léegi euh, suñu papa ba tey ñu duggaat ci waxtaan bi dugg na ci yow. fan la musique jëlee ak fan la la yóbbu. fan la fan la musique jëlee ah fan la jëlee ak fan la yóbbu. ah de teral na ma. te coon doon wax naan awma lu ñuy coow. Mhm. waaye yàlla may na ma nit ñi. Mhm. tukki naa wax dëgg yàlla wër naa àdduna presque te aar moo ma fa yóbbu togg naa ceeb mu neex ma sombi mu neex ma lakk mu neex ma sol yére mu rafet ma xeeñ parfum mu neex ma feebar faju mu neex te aw ma beneen métti nag bu dul aar. fan nga fan nga tàmbalee. maa ngi tàmbalee ci. ay kasak kasak boobu sama baat daawul jóg parce que man bëgguma woon def musique man sama passion moo doon fas course course hippique man jockey laa woon ah, sama papa amoon ay fas ma bëgg fas lool mais pour nekk jockey dafa am taille normal tëngéej googu laa njëkk a amee sama première victoire mm. muy ma jël fa deuxième ci douze partants ay chevaux boobu fas bu ñuy wax almaam yi moo dëkk Tëngéej boobu xam naa ay mbocc ngeen xamu leen ko <laughs> moo dëkk Tëngéej mm-hmm. moo doon fas boo xam ni favori la woon ci biir fas yi kenn mënu ko raw Tëngéej jour bi ma ñëwee bi mu nekkee premier moom almaam yi man maay deuxième ak fas bu ñuy wax Sadia Thioune ñu commencé ma bind ci journaux yi ñu dem cees ma raw leen ñoom ñëpp muy sama première victoire ma gagné ay petit prix grand prix yoo xam ne en tant que jockey. lan moom la jëlee si loolu yóbbu la si. parce que dama dépassé poids limite pour mën a nekk jockey. Mm-hmm. instant boobu damaa sew. Mm-hmm. xaw a gàtt nii. Mm-hmm. mais may màgg. di njool. sama yeel yi di gudd. léegi da ngay jeune fas bi dootoo mën dootoo mën a nekk jockey. d'accord. nga jóge ci ah, loolu. Ah, nga jóge ci loolu rek sa xel fan la jëkk a dem. mooy d'abord liggéey leneen. mais woy moom waxuma ci dara. nga jóge ci ma nekk soko saak sama mag bu ñuy wax Ablaye Naar nga xam ne mooy taaw coon topp ci moom. Mm-hmm. moo nekkoon chef comptable bi. mu ramassé ñu ñun ñëpp man Kéba jaajeeg ñoom si waa koñ ba. Mm-hmm. mat nañu ay vingt personnes. Mm-hmm. ñëpp mu yóbbu ñu ñuy journalier ci la Mandiaye mi juddu. ma xamante ci ak Fatou Guewel Fatou Guewel ci boppam mu mosaan am programme léeg dafay yónnee foofu ñu wax ma ni ma programme am na ma ñëw gis chef Dakar bi ni ko am naa programme de mhm. munuma luy loolu man ko damay way waaw mu bàyyi ma léeg ma daw mhm. li may am par weer mhm. foofu fii ci deux heures temps ma am triple bi ma commencé nag lem sama tëni. léegi euh, yow da nga cëb dem Fatou Gueye nga njëkk a àndal wala Papa Thione nga njëkk a Papa Thione laa mujjee àndal. Papa Thione nga man dama aw aw aw ay ndaanaan. Mhm. Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. Mhm. lu ñu génnee ma ka aw. Mhm. ma jooju ñu ngi. noonu aw naa sax les filles branchées ab sax ak tuuti. seen ñaari album ñu génne yëpp. maa ko aw. Pape Djibi maa ko këral dernier kasetam avant dem France coon këral naa ko ay morceaux yu bari ma pendre moom presque yu mu def yëpp maa ko aw est ko jàng wala da nga ñëw rek mu doon jànguma ko fenn dinaa la man bëgguma ko woon bëggoo ko woon parce que buñ déggee yenn say ay Assane Ndiaye yooyu buñ buñ ne buñ ñoom doon awu coon mais suñ demee bay génn duñ ne naa noonu ñoragoo toogal coon waaw loolu loolu nag moo ñu sauvé hmm. loolu xale yi nanguwuñ ko hmm. Hmm, xale tey nanguwuñu loolu. kon yow doon nga noonu ak sa ak sa doom yi. bu baax. ah communication diggante doom ak waajur kay. dañ ko ñoroo ko toogal ba si kanam. waaw mais koo ko ci wax. Mhm. xam nga xam ñu ko wër lan lañ koy wax. Mhm. papa dalaa bañ dafa soxor. yaa xew. ko loolu am na léegi moom <laughs> moom doom bi bu du mën a dégg loolu. non day jàpp ne du comprendre. du comprendre. mais avec le temps. Mhm. ñoom dañuy comprendre. te mu ñëwaat. parce que euh, moom si boppam euh, d' accord lu yéen ñaar amoon ngeen mal entendu tuuti. loolu moom ci tàmbali bi. loolu moom ñëpp la. Hmm. ja jëkkër ak jabar. Hmm. mag ak rakk. Hmm. waajur. xarit ak xarit. ah nekk ñu àjjana ne àdduna lañ nekk. léegi bi nga ñëwee ci ci ki nga mooy Papa Thione. waaw. après nan la fa nan la xanaa sant ko gërëm ko di ko ñaanal. ndax on lui doit dara ma daan wax lépp gis naa bu ma gisul lépp tam gis naa li ci ëpp solo parce que ay temps dama fi nekkoon ak sama ay moroom ñu siiw lool di def buzz di génnee kaset chaque année wala chaque six mois man bu ma masaan génnee cassette dinaa toog quatre ans wala cinq ans non cassette du génn cassette boobu ma génne moom laay nekk di ci di ko woy ba di ko way ba man sama bopp man daf may sàppi ma macha ñëwee mun ma damal toog ah, waaw. ma demal moo gën a marqué ci li nga xamante ne mooy sa mm, na li ma lépp. Mm. parce que fi ma jaar dafa bari. loo xamante ne moom dama ko dama a fàtte def naa ko ci aar a fàtte. bu bari man bi may nekk ci takkandeer rek ma penda mm. te mu jël lépp teg sama loxo. maay uti matériel man may répété man. may répété afin day toog kër. Ousmane mhm. tey répétition am na de mën ko ok. Mhm. benn heure trois heures ou trois heures mu ñëw mu woo ma wayal sama wayi bu tëdd këram. Mhm. ñu koy attaayal. ah apprentissage la. boobu yaa ngi jàng métier mi ah. ma géré musiciens yi sax maa leen ji moo tax dara mënu ma jaaxal ci sama Ousbande bi ah oui loo bëgg a doon sëriñam rek nekkal taalibe. nekkal taalibe. musicien lu muy bëgg a def ak mentalité bu mu yor xam naa la su ma la waxee ak su ma la waxul ma def ak ay génération musicien yu bari ci différents orchestres yi ma jaar nag te ñëpp ay star lañ Fatou Guewel macha allah ngeen ci moom lañ ma njëkk a xamee ci aw rek ay moo de mi ci déd beer sang bi ci Banjul yaa ma moy maa ko aw mu mel ni maa woy kaset bi. neex na lool. ah si yooyu du mos màgget. non lool du xewi. papa mu mel ni dafa am loo xamante ne yaa ngi koy waajal muy tournée boo xamante ne yaa ngi koy waajal Sénégal ñëpp di ko xaar foo tournée ñëpp di ko waxtaane bëggoon nañu nga ñëwal ñu si tuuti. waaw parce que man toog naa fi benn euh, deux ans wala trois ans boo xam ne. tëngeej laa mhm. toog. tëngeej rek laa toog. Mhm. Euh, maa ngi door a def sama retour nag à Dakar. njëkk ko def eh, ak sama benn doom bu ñuy wax Marème Bouba. Marème Bouba ma def ko village des Beaux-Arts chez Dia. après defaat fa ak maag Mapenda ñu def fa benn traditionnel. maak Assane Ndiaye ñu def benn traditionnel eh, ci benn hôtel de la place bu nekk ci corniche bi. Mhm. ma ñëwaat Oboba. Mhm. ak sama benn jigéen bu ñuy wax Khoudia Diagne la nouvelle gérante ñun ñëpp ma leen di nuyu au passage. 24 euh, décembre bii. 24 décembre. ma jëm la payotte. pour sama première soirée. Euh, ci payotte. première vingt ci payotte le 24 cinq ma jëm cercle de la rat en ville. en ville. waaw mooy mu nekk place boo xam ne place su kilifa la. Mhm. boo xam ne Joe Biden sax bu ñëwoon mën nga ko yóbbu foofu. macha moom it place bu bakkee ne bu rafet. Mhm. moom it ki ko moom di euh, Doudou Gueye. Mhm. ma du ko nuyu au passage. joué naa fa le 10 passé. gars yi bëgg ñu bisaat ko pour le 25. le donc ma ci invité ñëpp. le premier janvier aussi ñaari date la. waaw xam nga jour bi ngay joué vingt quatre ak mhm. vingt cinq moom ngay joué ak trente un mhm. ak euh, premier mhm. ñoo bokk même semaine bi la donc on est en fête programme bi yëpp fête ay ay ay ay ay kii la événement la décembre yëpp événement la ñan ngay woo ci li nga xam ne mooy ñaari événement ñëpp ñi nga xam ni gëj nañ maa gis ci télé wala ñu dégg ma ci rajo ñu dul nga xam dañu am sama numéro am sama whatsapp di mm-hmm. gis programme yi mais loolu rek doyul mm-hmm. bon à travers référence mm-hmm. maa ngi woo gaayat ni leen nag jóge naa côté Tëngéej ak Petite Côte bi ak yooyu ñëwaat naa dakaar mais nag sama manager bi nga xam ne moo yor lépp Tëngéej la dëkk yan artistes lañu mën a xaar bis boobu artistes yi du ñàkk ay Faramareen ah, ah ñàkk ay Faramareen c'est une mm. industrie musicale macha allah ak artistes yi nga xam ni dañuy ñëw mm-hmm. euh, nga xam dañuy ñëw à l'improviste est-ce que mën nañu ay quelques artistes parce que boo citer mën nga citer artiste boo xam ne jour boobu am na événement mm-hmm. loolu mën na am lu mu yàq ci kii am parce que mm-hmm. danaan ah comme day dem soirée Ousmane Seck kon xaaral xaar ko foofu alors que moom jour boobu du disponible dafa am moom lu mu war a def donc artiste invité yi mënoo mënoo mënoo ko kale kon nañ ñëpp invité nañ ñëpp ñëpp voilà ñëpp teew voilà lu bees tax lu bees waajal album bi aussi mm, dugg naa si jooma yàgg na lépp dégg pour lu tàng jër lépp noppi na ah non pareegul waaw ah? pare am lu des. te eh, dinaa am benn rek boo xam ne. est-ce que doo ñu ëpp naa def. non mais ñu tuuti rek. Mm. mais yàq na lépp. <laughs> <laughs> kon loolu mooy am ba léegi. ah yii yéen itam looloo tax album amatul ah, looloo tax ça tue l'industrie musicale mm-hmm. léegi booy génnee da ngay def say millions. Mm-hmm. mais xalaatoo ci gagné dara. Mm-hmm. mais nga am géer gu baax nag. nit ku baax. mu ñëw jàpp xam na ne mënoo ci am dara. Ah. mu mu financé la wala nga génn mu jënd. maye nga clippé xam nga moo tax léegi ay single rek. am na solo Bàpp euh, defe naa ne kàddu gu mujj gi lañ lañuy kii rek. ci émission bi ci émission bi waaw. Oh kàddu gu mujj gi si émission bi. <laughs> kàddu gu mujj gi te wér. <laughs> yàlla fi que référence la macha allah. ah neex si yow. ah waa léegi est-ce que est-ce que àdduna boo fi nekkee te teeyuloo. biram ni man. coon nee saxaar li muy gaaw gaaw. mënut mhm. a yóbbu wërsëgu kàkkatar. te ku na xam na ne kàkkatar nii lay def bu mm-hmm. tegee benn tànk nii mm-hmm. jël temps mm-hmm. tegaat pourtant mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi sëy mu ngi voyager di dem di ñëw ci loo yëg ak doo yëgul te garab gu mu yëg nag daal di koy nuru kooku mooy kàkkatar waxi mag <laughs> coono ko de <laughs> <laughs> li may tàggatoo d'abord mooy sama copain maam góor jazaaka xam naa lii nag moom fierté lay doon ci man mhm. parce que moom sama xarit la sama nit la te bëgg na ma ba ma xam ko mhm. euh, nekkoon na sama patron nag bi mu yor oblette mhm. mun ma ubbi naa oblet te fii dama bëgg nga xool jour yi la neex balaa may jox keneen xam loolu cër la sama gaañ la lee lañuy ñuy sax soirée bi du neex wala du am xaalis mun ma jëlal lépp génnawaat xaalisam jox ma mënu ma fii loo fi amul si yow la donc loolu moo di ko ci remercier mm-hmm. euh, di tàggu internet yi nga xam ne ñooy suivre référence mm-hmm. référence maa ko moom suma yëf la euh, di kontaan trop nag ci déplacement bi ngeen def mm-hmm. ak équipe bi ñëw fii c'est pas évident ak période yu feet sax nga xam day gën a xat moo tax ngeen tardé jaral nga ñu ko mieux vaut tard que jamais. macha allah ngeen. Mhm. bi ngeen ñëwee. Mhm. j'ai pas regretté parce que gis naa ni. Mhm. gis naa sama bopp si yéen quoi. allah donc ngeen bu ngeen demee ngeen nuyul ma waa Tëngéej ndax fa laa bokk. li ma gën a neex. Tëngéej ak Bargny. bi may def sama premier euh, anniversaire. bi Dakar. génnagul sax. nga xam dañoo tàmmee guddee. presque tëngee jag bari ñi fees nañu saal bi. dañoo mën a sot ah loolu duma ko fàtte. fii laa toog. Mhm. waa TFM woo ma di jébbab mhm. ni ma foo nekk man ko maa ngi waaj munuma looy waajati saal bi presque fees na te ba waa dakaar génnaguñu. xoolal ñu jabal waa TFM ñoo ma jël si fii ak ay oto escorté ba bi ma ñëwee bi ma xoolee saal bi man dama tiit. loolu moo tax li ma bàyyi tëngeej ak bari ñu laa lay wax de. Mhm. ma xam ne lébu ko sincère la. wallaahi sincérité boobu moo tax ma tànn ki seen biir. Mhm. ménagère. macha allah muy papa Maas. sama doom jee toog. Mhm. di yàq. maa ko ñaan si woon tëngeej. muy sëy ak sama doom bu nekk fii ñu koy wax Ousseynou. mu nekk ci man. waa tëngeej la ñoom buñ la bëggee. ak bari ñi. rek jeex na. kon ma di leen mhm. santaat yàlla nag. comme ni ñu ko tàmbalee woon. Mhm. Euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat ñaanal leen. Mhm. ñaanal sëñ Muntaxa ak sëñ Bass sama sëriñ ak kilifa diine yi. ci réew mi kilifa aada yi. jàngo bi. dañ hmm? nga xam ne ñooy soppee Ousmane yi. ak ñi ko soppul yëpp. di ñaanal yëpp nag yàlla nañu jeexal at ci jàmm. Euh, entamé 2023 boo xam ne jàmm rek moo war a am ci réew mi ki war a jiitu ñu xam ne lii yàlla moo ko dogal jëfe yàlla nag kenn mënu koo effacé ñu xam que ni ñun dañ fi nekk di di sabablu rek waaye yàlla pare na ci lépp ku xamoon Ibou Sakho daan na wax ne ku xamoon fi yëf yi jóge hmm. doo yàkkamti doo xaste hmm. doo yàqal kenn hmm. ndax ba léegi yàllaa ngeeg lu amul amagul boroom macha allah du jeexal du jeexal de. waa léegi. Hmm. est-ce xool asamaan bët dina ci buuxante xajal ma ma xool. yàlla ëpp na lool wallaahi kon nag allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. jërë ngeen mu nekkoon suñu papa. Ah. mu nekkoon suñu papa suñu xarit muy papa Ousmane di ku baax macha allah ñëwoon seeti ko fii ci këram waxtaan ak moom xam naa ñoo jox rendez-vous semaine bi incha allah ci beneen invité bu yàlla.